يا رسول yi ñuy seetaan fii ci résident Cheikh bu Mouhamed Kounta asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi gàmm li ci gën a fës bokk na ci sunuy ndaw yi doxantu ji woon ca institut Cheikh bu Mohamed Kunta di ab daara moderne bu yëngu ci njàng ak njàngaleem alxuraan ñaari fan dong des ci gàmmu Ndiassane bi ñu nekk ci jamonoy nawet nag ñi nga xamante ne ñooy waa service di d'hygiène ñëwoon fii ni ki démb ngir sensibiliser askan wi ci euh, jàngoro bi nga xamante ne matt matt yoo moo koy indi di ngeen ci am ay leeral ci yile xibaar njiite di ab dëkk ba nga xamante ne ñeent téeméer ak fanweeri mètre dong moo dox ci digganteem ak Ndiassane sunuy ndaw doxantu woon fa tey rek ngir xam seen diggante ñaari dëkk yooyu di njiite ak Ndiassane di ngeen ci am ay leeral ci xibaar yi li moo gënoon a fës ci xibaar yi léegi léegi ñu yaatal leen dal leen ak jàmm xibaar yi dañ koy dooree ak institut Cheikh Bou Mohamed Kounta di ab daara moderne fii ci Ndiassane tey nag suñuy ndaw demoon fa ngir waxtaan ak ki nga xamante ne mooy njiit la moom nag seq nag noog suñuy ndaw ab waxtaan di leen wax rek naka la daara ji daal di cosaanoo ñu teewlu suñuy ndaw ci reportage biñ ci def. daaray Cheikh Bou Mohamed Kounta di ab daara moderne buy yëngu ci njàng ak njàngaleem alxuraan sànce fii ci Ndiassane ci atub 2013. ñoo ngi si daaray Cheikh bu Mouhamed Kunta muy daara moderne bi nga xamante ni moom moo fi nekk eh, daara ji nag eh, comme niñ ko xamee eh, ñu ko <clears throat> sos depuis le 13 juillet 2019 si la liggéey bi commencé liggéey boobu nag comme niñ ko xamee mi ngi jëm si jàng ak jàngale ak yar ak tàggat ndaw ñi si li nga xamante ni moom mooy jikkoy alquranul karim euh, si euh, noonu lañ ko sancee te it ki nga xamante ni moom na yàlla dogal euh, sëriñ bi tegoon ko si loxoom di sunu waaju Cheikh Mohamed Rifaay ba léegi sëriñ Abdoulatif Kunta di ñu xamal particularité daara ji comme niñ ko xamee si jàngale alquran la cay njëkk mooy xale bi des koy tàggat euh, si mu commencé si te tahaj ji euh, fexe ba góorgóorlu ak moom mu mën a maîtriser li nga xamante ni moom mooy euh, araf yi mën a góorgóorlu ba jàng ba fere ijji ba ràññetle bu ko defee boobu mooy étape bu njëkk bi si li nga xamante ni moom mooy moom mooy programme bi étape boobu nag <clears throat> étape bu am solo la sim njàng ngir parce que li nga xamante ni moom mooy ëllëgu xale bi wala njàngam fu mu war a jëm lépp mi ngi si base bi moo tax base boobu lu am solo la euh, moo tax borom xam-xam yi euh, def si njàngat bu am solo euh, pour si lu jëm si fexe ba xale bi mën a am lecture bu set wi ci fexe ba mën a am maxaarij gannaaw ba mu bokkee ci daara yi gën a màgg ci tund bi xàññee nañ ko itam ci wàllu résultat fekkee nag si góor góorloo moom lu jëm si wàllu résultat daara ji xëy na euh, dañ naan ay góor góorlu kese la parce que euh, liggéey bi moom euh, dañ si góor góorgóorlu rek wante teewul tamit yàlla yim lay defal comme xéewal nga nga santee ko borom bi subhaanahu wa taala dëgg yàlla daara ji mu ngi def ay effort yu am solo si njàng bi si góorgóorlu <coughs> ba boo xoolee Euh, daanaka mboolem jongante yi nga xamante ni mi ngi am fii si dëkk bi ba si commune bi euh, mboolem jongante yi mu mas a bokk yëpp danoo gis ne daara ji euh, moom moo koy yàlla defal na ko tawfeex moom mooy jël raw gàddu gi daaray Cheikh bu Mohamed Kunta am internat ak élève simple ñu leen di tàggat jàngal ak a yaax ci alxuraan waajtaayu gàmmu gi ba léegi ñaari fan dong des ci ab jàngoro bu yees nag wàcc ca Tambacounda waral ki nga xamante ne mooy chef brigade spéciale service d'hygiène bu euh, Tiwaawoon di lieutenant Moussa Dione ñëwoon fii ci Ndiassane ngir rek saytu matukaay yi nga xamante ne mën nañ ko jël rek ba jàngoro boobu bañ a wàcc ci dëkk bi nga xamante ne euh, day dalal ay gan yu bëri ñaari fan dong des ci ñu teewlu portage bi ci suñuy ndaw def. gàmmu Ndiassane atub 2023 tombeek jamonoy nawet loolee waxal waa service d'hygiène fas yéene jël seen matukaay ngir moytandiku bépp jàngoro ba nga xamante ne nawet lay àndal. Euh, gàmmu gi euh, tombe na ci nawet ku wax nawet nag wax ay feebar ndax feebar yooyu li koy indi mooy ay ay yoo ñu nemmee ci feebar yooyu euh, ci jamono Euh, li nga xamante ne ni mooy lu mel ne chikungunya lu mel ne paludisme lu mel ne dengue ak Zika mais euh, lii di chikungunya mu nekk loo xamante ne nii feeñ na fële ci Kédougou ak euh, ak ca Tambacounda ci loolu waral ñu war a jël ay matuwaay yu yu yu yu baax pour mën a mucc ci feebar boobu ndaxte nit ñi ñoo ngi dox te feebar bi li koy yóbbu mooy ay nit ak ay mala ay AIDES nag di ab xeetu yoo ba nga xam ne wàlleem dafa gaaw lool tax na lieutenant Moussa Dione di sàkku ci taalibe yi ñu maytandiku bu baax a baax. buñ ko nit ñi bu ñu xasee feebar bu ñu ñëwee dañ dañ koy indaale ci seeni deret bu boobaa am na xeetu yoo boo xamante ne nii mooy moom la ñu tuddee AIDES te muy màtt bëccëg yoo boobu mooy joxe bu bu màttee ka nga xamante ne dafa feebar bu màttaatee keneen. mën na ko walla loolu nga xamante ne mooy feebar boobu ba tax na comme yoo boobu tamit bëccëg lay màtt ñu woo population yi ñu góorgóorlu ci sol lu gudd euh, ci bëccëg bi waaye tamit buy xale yi di nelaw ci bëccëg wala nit ki sax mag nga bëgg sieste ngay faral di wàccee moustiquaire yi. jàngoro gi nag mu mel ni nemmeeku wuñ ci benn cas ci diwaanu Thiès bu ñu sukkandikoo ba léegi ci lieutenant Moussa Dione. di nekk ci biir. yàlla def na nag sutura ba fi ñu toll nii benn cas amaguñu ko ci fii nga xamante ne mooy diwaanu cees ndax euh, euh, li waral loolu mooy euh, ci fànn yëpp ñun ñoo ngi taxaw ci surveillance épidémiologique boobu ci prévention bi ndax prévention boobu ñun ci wàll wiñ ci féetee ci service d'hygiène mooy ñuy pomper pompe néeg yi waaye tamit poudre li nga xamante ne ni mooy lépp li nga xam ne mooy aalam bi waa service d'hygiène tàmbali di pompe ci biir dëkk bi war a mottali liggéey bi tey jii ci guddi gi noonee sax lañuy soññee rek askan wi ñu xoolaat dëkkuwaay yi. Youssoufa Mbodj di njiital parti bi di alliance patriotique du millénium ñëwoon ziar si xalif général kullu xaadr cheikh bu Sidi Muxtaar Kunta daani ko rek présenté li nga xamante ne mooy programme bi mu fas yéene tëral gannaaw bu jëlee réew mi nag ci kujjeg politique bi nga xamante ne jàpp nañ ko ñaar fan ak février ñu jëm euh, téere bi nag mu mel ni rek bind na ci ay ponk yu baree bari ñu teewlu ay kàddoom ci micro Dame Kébé. ñoo ñëwoon euh, Ndiassane pour euh, joxe suñu ziar jox ko kilifa gi di si profité waale aussi joxe waale ko suñu programme ndaxte parti politique bu jug ne na ngay dem nekk candidat à la candidature wala candidat à la présidence da nga war a tëbb sa programme léegi programme bi ñëwoon jox ko kilifa gi sakk waale ñaan. ndaxte man ci ci famille bi la bokk ci njaboot gi laa bokk boo xoolee sunu programme ci livre bi cinq cent deux euh, pages dix neuf chapitres chapitre bu nekk ma jëm ci décliner benn activité ak benn secteur de développement premier secteur bi mooy éducation parce que ku wax dëkk bu war a développé wu wax d'abord l'éducation donc éducation mooy njëkk après ñu dem agriculture dem ci santé ndaxte wérgu yaram c'est important dem ci aussi pêche euh, dem ci industrie wax aussi entrepreneuriat nu ñu koy doolelee waxaale aussi ndaw yi nga xam ne ñoo ngi jël gaal di dem naka la ñuy fexee ba teye leen fi waxaale nañ tamit si naka la ñuy xeexee gar moom mooy la corruption njiite di ab dëkk ba nga xamante ne moo ko Njaasaan rek téeméer ak fanweeri mètre moo dox seen diggante tey nag comme niñ ko faral di defee suñuy ndaw daal di fay doxantu ngir waxtaan ak ka nga xamante ne mooy borom dëkk ba ngir mu wax ñu taarix bi nga xamante ne dox na ci diggante Njaasaan ak njiite ñu teew lu contrent bi ci astu Sow def. njiite di dëkk bu ñu sanc ci atub 1869 Njaasaan ci atub 1883. ñaari dëkk yi nag déggoo lool ci xol waaye itam ci dëkkandoo ci bu ñu sukkandikoo ci ku yor kàddu boroom dëkk bi. njiite ak njaasaan ca mag ña ba léegi relation bu rafet lañ yor ndax njaasaan bi Serigne Cheikh Bou Kounta sanc si 1883 la fekk njiite man nag taarix moom waaye li ma gis ci mbindum mag ñi nga xëy gis naa ko ci mag. njiite ñu ngi ko sanc 1869 Ndiassane ñëw sanc si 1883 kon Ndiassane njiite jiitoo na ko fukki at ak juróom waaye biñ ñëwee tam fekk ñu xamante woon lu jiitu càngaay ndax Cheikh Bou Kounta mi ngi jógee Ndang umpulewu kenn umpulewu ko sanc si bam sanc see nag relation mag ña càngaay nga xam ni sun mag ñi ñii gor ngaay njiite lañ jóge ñii góor njiite ngaay lañu jóge Ndiassane nag di wéyal kóllëre gi nga xam ne borom dëkk bi di Cheikh bu Mouhamad Kunta moo ko daal di santaane diggante Ndiassane ak njiite rafetal boobu ñu doon rafetal diggante Cheikh bu Kunta ak sun maam yi ca ngaay ba yàlla dogal ñu gor si bu Kunta daa daal di rafetal boobu continuer ni njiite de bu leen kenn laal ndax njiite ay ay jàmbor lañu bu leen kenn laal dara ku leen laal mën nga laal cheikh bu kunta wax loolu ñu continuer ci loolu ba cheikh bu kunta génn àdduna 1914. njite mooy Ndiassane Ndiassane di njite loolee bokk ci kàddu porte parole lu borom dëkk ba naka noonee mu ñuy xamal réalisation yi nga xam ni Ndiassane def na ko ca njiite ba dëkk bi lépp lu ngeen fi gis Ndiassane la li nga naan ndax Ndiassane importance amal nañ ko njite en xakay courant bi ñoo ko fi indi. fa tubaarakallaahu daaw rek daaw daaw rek daaw jéeg rek seexal bekkaay bekkaay bekkaay dafa wax ni na ngeen dem njiite ngeen changé potoy bant def ko lépp potoy ciment ñu sëf ñeenti fukki poto ak benn moo ne diggante tali bi ak njaasaan potoy banta fi ne waaye bala ngeen koo defar na ngeen defar njiite ba sampal leen ba pare ngeen doog a ñëw sampal waa njaasaan ci fàttali ñeenti téeméer ak fanweeri mètre moo dox ci diggante ñaari dëkk yi nga xam ni ci atub 1883 ba léegi ñu ngi daal di wéyal santaaneb borom Ndiassane. xibaari gàmm gi sama ke dañ koy jeexalee ak rubrique bu ama am solo gi ñu oustaz Sidi Lamine Cissé defal oustaz Sidi Lamine Cissé lan nga ñu indil tey. macha allah soxna Musu tey ni ma indi mooy tur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax téere yi dañoo coow bind ci seen pilim yi nii yonent bi malaaka yi lañ ko tuddee. kenn ci malaaka lañ ko tuddee ñii ne yàlla lañ ko tuddee ñii ne jibril lañ ko tuddee ñii ne haatif moo ko dikkal ñii ne ñii ne ñii ne waaye ci njaasaan rek ngay xamee turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo woote ngénte soxna musu ku bëgg a xam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan lañ ko tuddee dañuy topp ci suñu waxtaan. kàddu yi am na solo bu baax a baax oustaz Sidi Lamine Cissé waaye yen ñi ko doon seetaan di leen wax ne rek euh, kàddu yu am am solo yooyu muñ doon indil moom oustaz Sidi Lamine Cissé dinañ leen ko tegal léegi léegi boo leen ko bëggee déglu rek da ngeen ñuy topp ci suñuy programme euh, loolu rek moo nekkoon xibaaru gàmm gi tey jii euh, di leen jaajëfal yéen ñi ñu doon seetaan fii ci résidence Cheikh bu Mohamed Kunta waaye di jaajëfal Lamine Samake Oumar Ndiaye ñoom ñu jàpp sama xibaar yi ba ñu daal di yemb di leen dig daje ëllëg yaa ibaadi sufuuf daanil hutuuf